Hola Barcelona événement spécial muy benn soirée spéciale muy concerto de Viviane la reine de Jolof Band le 13 novembre fii Barcelone Faut du ci Espagne Bernard waxtaan donga fi am mooy lan Viviane si dit le 13 novembre fii ci Barcelone ñëpp di ko waajal waa Granollers à Girona à Barcelone wa Calella ñëpp a ngi foofu kan la ñu tuddee bés bi nag muy ndaanaan ci biir Grand Lodiès ñëpp xàmmee ko ràññee ko ci maanaa ci defante yu baax kookoy kan Awa Koyta jamono ji ñuy wax ak yéen Awa Koyta mi ngi fële ci Paris nee na ma Viviane ci biir Barcelone du yomb foog ma defanteeg moom fu may jëm capital de la mode muy fan Paris moo tax bi ñuy fekk ñu ko fi mu ne ma dem leen sama rakk ngi foofu muy faatu Koyta dina wax ci sama place salaamaaleykum Fatou. salaamaaleykum. lu toll ni bésu Viviane ñi marraine ko sa mag Awa Koyta yow looy wax ci bés boobu. mané boss bobu du yomb inshallah dañuy ñaan yalla féké ko jam ak salam sama mag bi lañ ko tuddé daf nekko fi dafa dem paré pour dem bu ñëwaaté defante ji ak Viviane do waaw fatou xam nga le 13 novembre le muy vendredi la ca dess barétul dama bëgg na nga wo say xarit say andi jam dëgg la ma ngi wo wa Granollers wa Barcelone wa Bic wa Calella wa Girona ni ñëpp wa Facebook tambien ñum ñëpp képp ko xamante bëgg na gis Viviane na ñëw le 13 novembre allah ci Grande Dièze. gis ngeen nu mu ko waxee képp ku bëgg a gis Viviane na nga ñëw le 13 novembre fan lay xewee discoteca Golden Avenida Sen Julia numéro 92 entrée yi ñaata la 20 euro la maanaam mooy prévente yi avant soirée bi jour soirée bi cinq euros la Fatou. bas bi du yomb le 13 Viviane nee mi ngi ñew te dafa bëgg a jàkkaarloog képp kuy famille Koyta yaakar na ni Awa Koyta bés boobu bésam la tay nak da nga am wàll ci pël yi dama bëgg nga wax ak pël lañ salaamaaleykum yimɓe bandiraɓe am fulɓe miɗen salmina on piwi miɗen wi on on ñan ala yengol fof kala jiɗɗo arde fof na an pour ya viviane inchallah le 13 novembre à grande mi len padi on fof mi salmini on waaw xam te español hola estoy diciendo que vas a venir un cantante africana que se llama Vivian Vivian y invito a todos los catalanes españoles todos para venir que sea mujer hombre hijo y niño todo que venir ahí para ver a Vivian este día 13 de noviembre 2015 a Granollers ñoko ko déggandoo 13 novembre in Granollers Barcelona Viviana in concerto fii lay xewee maanaam képp ku tardé bës boobu yaakaar naa ne dootoo gis dara Viviane nee na ñetti valise lay indaale lépp lay jox fans kon xale yu jigéen ñi préparé leen waaye. macha allah ñu ngi ko fekkee incha allah jàmm ak salaam def bu mu baax ne Viviane ñu ngi koy xaar.